nekk lu ñu xel yi namoon la pour waxtaan ak yéen rek ci xew-xewu réew mi askan wi rek ko am koo xam ne nag askan woowa la fi teg boo demee ba yàq ko rek naan bu yemee wax damaa nekk dafa yëngu moo tax li honorable Aïda yi mooy ñaare bu ñu demee ba kenn ku nekk bu ñu laalee sa morom rek nga jàpp ni concerné wu seetaan ko bëri. kenn ku ne nag am na nooy manifester sa solidarité ak sa euh, nuñ koy waxee ñoo mën a dénoncer li nga xam ne mu bëri jaay doole boobu nag dafa ex koo xam ne ci Sénégal bu ko dellu gaa yi ñu si yëpp parce que lu ñu gis na xam ko dund ko wax ci waxaat waaye li xew léegi rek ay interne les hôpitaux matuñu sax 50 personnes ko dëkkee base di waxee interne de mooy ku dem ba pare presque jàngam def bac plus huit ñu néew si ñun fii ñoo def bac def bac plus douze di ay intellectuel di ay fajkat yoruñu ay gànnaay yoruñu ay xeer image yi ma dañ ma ko envoyé léegi ma koy xool loo xam ne matuñu juróom fukki nit te dañuy wax ak nguur gi nguur gi tànqamlu leen lan la ñuy laaj mooy nañ leen jox ab statut képp kuy liggéey ku ne da ngay am statut yéen journaliste yéen a wax euh, nu mu tudd code de la presse wax code de la presse wax statut du journaliste soo demee ci fonction publique nga fekk statut général de de la fonction publique feneen ak feneen noonu les agents non fonctionnaires sax les gens des collectivités locales léegi xeex nañu ba réclamer un statut kon day jaar ñu mel noonu ak fu ñu jaar ci njàng dañu yaakaar ci ñoom suñu wér-gu-yaram ñun suñu nee nañ leen jox statut ba ñu xam ci ban anam la ñuy toogee ñoom loolu est na ñu leen di duma ak di leen sànni ay lacrymogène li ñuy laaj mooy insertion professionnelle ñëpp xam nañ ni Sénégal li fi nekk ci ay médecins nag doy way norme OMS boo jëlee lépp. en terme de nombre de postes de santé, nombre de cases de santé, nombre de d'hôpitaux, nombre de médecins, nombre de spécialistes, nombre de sages-femmes, nombre d'infirmiers, on est très en deçà des normes de l'OMS. kon ñooñu suñu jàggee ba toll fii ñaar ñaar ñu benn faveur waaye nañ leen insérer nañ leen jël ñu liggéey faj askan wi kooku est-ce que jar naa duma ñu ne nañ leen wax ban payoor la ñu war a am parce que taayale bi ñuy jub si élection législative dañoo xëy yokkal ñëpp seen salaire boo demee ci hôpitaux yi ñëpp la ñu yokkal ba ci brancardier yi ambulance yi médecins yi sage ba mu des ñoom interne yi est ce que loolu jàpp na kuy réclamer loolu est ce que jar na ci loo xam ne matuñu juróom fukki nit te image yi boo xoolee biir hôpital ba ñu leen sànni ak téeméer su doon sax dañ leen fekk place de l'Obélisque lii la nguuru Macky Sall moo dafa jot sénégalais yëpp xam ni ñun lu ñuy xeex xeexaluñu ko suñu bop ndax mbébétam bu sottee kenn dootul wax ci réew mi de kenn dootul wax kenn dootul noyyi sax waxuma laa wax à part wiiw Macky bravo Macky mandat à vie Macky tu es le plus beau ku wax la safaan ba bu yóbboo nga xam ni musiba dal sa kaw la tam ñuy dellu di apporter suñu soutien ci détenu politique. yépp Macky Sall dafa battre le record de la détention pour crime d'opinion tey ñu bëree bëri ñi ngi ci ay loxom lañ leen toppee mooy xalaatin gu wuti ak xalaatam léegi laa gis ci presse bi ñu ne Karim Xurum Xax ak euh, euh, euh, Cheikh Omar Diagne suba lañ leen di présenté ci juge d'instruction premier cabinet Nous avons def nos côtés. gis suñu nit dañ lay ci lu pression euh, juge d'instruction bi ne ko dossier euh, juge d'instruction ne ko dossier bi instruction ay fayda ñu ci nit sax war dem ça flagrant mais dañuy def pression ne ko ba dossier d'instruction. instruction pour métital comme ça on ñu six mois six mois nga privé de liberté ak liberté ni mu mel ci nit privé de liberté pendant six mois ci ñak fait de on devant un juge ñu war gën comme juge di couper la poire en deux dem ba li du mais comme ci ëpp ci ragal nañu nguur ragal indépendance la magistrature dañuy pour couper la poire en deux mooy nañu ne bon nañu nañ ko def sursis bu ko defee sursis bi suñ ko defee trois mois suñ ne def nañ ko euh, six mois dont trois trois fermes moom tëdd na six six mois ba pare ñu ne ko bàyyi leen mu dem ñibbi dañuy fooyee léegi justice dañ koy fooye dañ koy fooye xoolal li xew keroog mbuur procureur ci boppam chargé na l'autre partie ne ko yaa tooñ yaa provoqué yaa andi xeex bi problème bu am ci dëkk ba yow la xam nga loolu soo ko waxee war wax ji jeex na mais ci réquisitoire am mu ñëw demander deux ans dont un mois un an ferme parce que il fallait que mu jox ñeneen ñi benn sucette bu ñuy bu ñuy téye ñoom it ñi nga xam ne ñoo ñooy patron mais loi dafa ne un crime même su doon crime am na un crime quand il est provoqué il y a circonstance atténuante kon naka la ñu mën a ni ñuy foowee léegi justice bi ak ni ñuy foowee liberté nit ñi ci réew mi toll na foo après suñu jógee ne ñin ñi ñoo bëgg monter les foules contre les magistrats déedéet ñun amuñu intérêt monter magistrats yi ñun kenn ku ne ci ñun am na mbokk magistrat kenn ku ne ñun am na frère wala cousin wala un la jege koo xam magistrat la kon amuñu benn intérêt monter les contre qui que ce soit Oui, acte yi ñuy posé am nañu sañ-sañu apprécier ko ndax ñun ñëpp dañoo jàng droit ñun ñëpp li ci ëpp ci ñun fac droit la ñu génn ni mu tuuti tuuti am nañu déyaa ci droit duñu praticien nag te dañoo yor suñuy avocat di jëflanteeg ñoom am ay xaritu magistrat di waxtaan ak ñoom lu fi waay def te jaaduwul yow soo toogee wéet ak sa bopp xam nga ni jaaduwul juge bi ñu jox dossier Pape Alé Niang avocat yi dañ ma ne gis nga am na juge yoo xam ne buñ leen ko joxoon jour boobu Pape Alé Niang day ñibbi këram kuñ fi bugg a def yóbbu instruction juge boobu lañ koy jox

li xew ci réew mi na ñëpp delo si seen xel réew mi ñoo bokk de ku yaakaar ni mën nga dëkk ci lor nit ñi ba pare yow tok dem tank sa kër lek sa ceebu jeen nan sa ataaya jël père de famille yóbbu ko prison xagn ko ay domam xagn ko njabotam lolu ba kañ lay wéy lolu tôt ou tard dina jur ci réew mi loo xam ah maara day taali menacé ñu nak dañuy dañuy araftu pendant qu'il est temps kenn ëppalewul sa morom ci ci nekk naa juge taxul nga gën nit ñi sénégalais nga ñuy sénégalais applique la loi jàmm ne ñooy mais soo bàyyee loi dugg ci yeneen fitna ngay indi ci réew mi te fitna juge rey na fi 14 nit mooy manipulation yi ñàkk fayda yi Serigne Bassir Gueye doon def rey na fi 14 nit bu ñu fàtte yooyu au nom de quoi kon bu loolu weesoo nag. De kii wax na ko léegi Aïda man damay féliciter suñuy député parce que war nañu fexe ba lii priorité réew mi duñ ko fàtte mukk parce que dañu jàkkaarloog ñoo xam ne dañoo lajj ba ñëpp xam ne lajj nañu mën yëpp fenn la mooy allumer des contre-feux pour nasaxal xelu sénégalais yi ñu nekk ci ay détails commenter ay détails suba ak ngoon fàtte nag lan mooy problème yi lan moo tax sénégalais tey ndaw ñi amuñu liggéey lan moo tax mbay mi doxul lan moo tax càmm gi doxul lan moo tax napp gi doxul lan moo tax amuñu ay industrie lan moo tax coût de la vie toll fi mu toll nii loolu rek moo war a doon tey suñu farita fii ci réew mi leneen lépp su ñëwee pour féexal suñu xol la ñun ñëpp am nañu ñaan na am na ñu nañu yéene yéene nañu Sénégal gagné bi du tey day féexal suñu xol parce que nit dafa soxla loolu dinañu am banex ñaari fan ñetti fan 1 mois ñu fété mais su loolu wesso su dee problème yi may wax ni réglé wuñu ko Sénégal bu nek day wat nak ku lo dépense nekkat ci situation ñak dépense ku mënul faju nek situation baña faju ku amulon liggéey amal amago liggéey ba légui ndax coupe du monde ko fi motax yoy tax nañ koy suivre nañ ci am passion lamb gi suñu sport la bu amé nañu sétane nañ ci am passion nañu am lepp waye bu mu tax ñu faté suñuy farata bis buñu amé niveau bobu rek légui réew mi soppiku moo tax damay féliciter suñu député ndax assemblée bi xam ngeen ni gaay son nañ de fimné ni ñi ngi ñaan yalla marathon budgétaire bi gaaw jeex xam ngeen seen argument yépp lan la ku yéeg ci tribune ba Ousmane Suite Boté yow ñu yóbbu la assemblée nationale pour nga wax ci farata réew mi Ben, argument la ñu am mooy Ousmane Suite Boté député yaa ngi leen fay.

dama bëgg sénégalais dafa am lu ñu waxante woon ak ñoom biñ ñuy campagne ak ñoom ci taxawaay bi ñu war a am assemblée nañu xool ndax suñuy député tey am nañu taxawaay boobu wala amuñu ko xaw ma député keneen nag parce que kenn ku nekk da nga amoon engagement boo jël sa digganteeg réew mi waaye suñuy député ñun yewi Askan Wi ñoom ñëpp su ma doon lim ñoom ñëpp bari nañ fa lool ñoom Aba Mbaye ñoom euh, Guy Marius ñoom abbas Fall ñom aïcha Touré euh, euh Babacar Mbeng etc. parce que Koulim Djoum, ñom ñep sen taxaway Sénégalais yeb gis nañ ko té loolu waxanté won ak askan majorité rek ngeen xam pour bloquer réew majorité lu andi muy nañ ko luy budget un du budget sincère même loi de règlement il a fallu suñuy député taper sur la table pour nous gaawantu joxe benn loi de règlement bi ñu ko le budget bi exécuté bu passé bi il n'est pas équilibré budget bi boo jëlee rubrique par rubrique comme boo jëlee budget global bi dafa bëri loo xam ne boo jeexee ci biir Nous avons fait fekk budget. fajuwuñu ñun dinañu voté budget boobu loolu moo tax ñu am fa soulever nañ fa ay problèmes yo xamné ñom amuñu tontu bi wala ñemewuñu ko tontu té dina am ay suite judiciaire yo xamné suñu député dinañ ko poser kon mané dañuy féliciter suñu député yooyu parce que dañ leen santone ñu delloo ci débat bi ci li nga xamné moy priorité sénégalais priorité sénégalais du xasante assemblée nationale bi moo tax lañ leen taawam ci télé yi dem leen poser débat sur le troisième mandat xam ngeen lan mo waral lool li nga xam ne mooy coono réew mi la bëgg nit ñi fàtte ko naan troisième mandat dina am du am nangam nangam Macky Sall si les garçons na taxaw ci kanamu sénégalais mu wax leen bu boobaa la war a xew dina xew du affaire Ousmane Sonko du affaire Déthié Fall askanu Sénégal bu dee nangu nañu troisième candidature ñoom la bu dee nanguwuñu ko ñooma waaye laam-laame beeg yooyu di créer ay de baa nit ñi nekk ci. du troisième dina am du am man de duma ci wax pour le moment xam ngeen li ñu ñoral li ñu soxal ñun fi mu toll nii ba ci njëkk mooy yorin gu ñaaw gi ñu yor réew mi wax nañ jamono jëlee li xew ci jëndum ngànnaay gis ngeen ngànnaay dafa yàgg tas ay réew ngànnaay dafa yàgg tas ay réew te ngànnaay ñun suñu système ni mu doxee dañ ko mus a centraliser am ñu koy doon jënd ñu xam ngànnaay bi fan la jóge naka la duggee ci réew mi fan lañ ko stocké ba nga xam ne ngànnaay gune dinañu xam kan moo ko yor à temps réel mais bu ñu demee ba ay ministère de l'environnement di passé ay contrat quarante cinq milliards ci suñu budget réew pour ne day jënd ay armes de guerre problème am na ci réew mi gis ngeen ñun kenn duñu kenn duñu fa fàtteloo loolu waxu troisième mandat jotagul ngànnaa yooyu il faut mu leer sénégalais xam nu mu demee nga jël ko dem jox ko ab trafiquant d'arme boo xam ne nee nañ dëkk bi mu dëkk ñu ngi ko fay wër ngir ay luubal ak ay yu doy na yu doy waar est-ce que xam ngeen ni Macky Sall mi ngi tayle Sénégal te lii yépp nag dara tax waru ko lu dul pétrole ak gaz ak zircon ñoom seen mi ngi dugal ci biir réew mi ay nit yu dangereux ñoo xam ne ngeen xam ni coowal 45 milliards yi mu jëndee armes yi bokkul ba léegi ak contrat bu duuna duun bi nga xam ne jox na ko ay israéliens pour ñooñu defal ko benn ligne de garantie pour mu jënd des dizaines voire des centaines de milliards d'armements mooy li ngeen di gis léegi dara su xewee ñu génnee ay dragon ay chars de combat pour pour intimider pour xëbal pour xoqatal askan wi ba kenn dootul ñeme wax loolu il faut mu leer il faut mu leer moo tax ñu jox ndigal suñuy député déposé nañu pour ay commission d'enquête parlementaire parce que ñaar yi ba léegi bokkuñu de 45 milliards yi bokkul ak bu bu yahut yi te loolu faw ñu wax ci ba mu leer lii suñu yittee ba léegi ci scandale yi dégg ngeen ma sama dernière point de presse ma wax leen suuf si mu jël di ko jaay jox ko même yahut yooyu même même Israël yooyu mu tuddoon noonu la jël dem dagg dëkk ba jël au commandement de la gendarmerie génne leen fa dem luwel leen almadi ñuy fay lu cher mu jël lu mat 5000 mètres carrés jox ko ñooñu pour ñu tabax fa ngandim immeuble defal la ñuy defar te ñooy moom immeuble bi ñoom bi ma ko dénoncé dégg nga xaw ma directeur Patrimoine Bâti génn di wax ay waxu picc li mu wax yépp dafa confirmer li ma est-ce que ñun dañuy seetaan Macky Sall continuer moom ak ay ñooñam di pasar pasar réew mi nii di dem jël ay waa bitim réew di leen daggal suñu réew di leen ko jox dus dus bàyyiwul suuf si suufu taax yi comme suufu àll bi bayiwul géej gi pétrole bayiwul gaz bayiwul zircon bayiwul lenn ñun ñu toog rek di seetaan boo waxee ñu ne dañuy weddi man dama leen naan toujours man de pare naa pour ñu organiser débat ma réitéré ko fii ministère des mines na toog ministre de l'économie et des finances na toog ku ñu bëgg na ñëw toog moo nekk fii di fay ay nit ñu nekk ci mbedd mi di wax su doon pays bu normal la ñu nekk dañuy ñëw ñu débat débat public ma démontrer leen ni jaay nañu réew mi. Macky Sall ak ñi mu àndal jaay nañu réew mi suñu ñëwee xëy ñu naa non c'est des questions techniques vers tout le monde question technique bu lan jaay alalu réew mi contrat yi ne fag ñu téye nga naan question technique kon dégg ngeen keroog assemblée nationale premier jour bi Guy Marius Sagna interpellé na ministre des finance ne ko israélien yooyu ba léegi yow signal ngeen leen benn exonération ne waruñoo fay l'impôt fii Sénégal dégg leen bu baax li may dafa am solo jël suñu alalu réew lu mat ay centaine de milliards nga jox ko ay israéliens waa bitim réew ñoo ñu ne ñoom duñu fay impôt Sénégal débrouillez-vous mais duma fay l'impôt ñu wel déwëlbatikuwaat Abdoulaye Daouda Diallo signé leen benn document neleen leen du ngeen fay impôt du ngeen fay TVA fii biir réew ay dizaine de milliards ñu ñàkk ko noonu ci lu neex waa bitim réew te jamono joo xam ne tey jamono ji ñi ngi def tournée PPA boutiquier bi ne ci koñ bi su fayul cinquante mille francs yi moo rafet ñu tëj boutique am waaye ku jóge bitim réew moom mun na ñëw ñu baal ko impo wu ay milliards yi milliards loolu est-ce que jaadu na lii mooy les vrais débats au Sénégal c'est pas ay troisième mandat wu Macky Sall lay waxu kacaw buñ ci tollee dina wax sénégalais ndax day def troisième candidature parce qu'il ne sera pas président une troisième fois au Sénégal inshallah. allah au moins c'est xam nañu ko da ca des yëpp ay waxtu la ak ay ñun suñu yoon ci scandale yi fi am dégg ngeen démb ab ministre ñu interpellé ko scandale 29 milliards prorogue Le ministre bu nilaar boo xam français bu leer sax mënu ko wax ci assemblée nationale ministre des finances moo mujj jël kàddu gi di ko ñu jël ko def ko miir pour ne ko demal saaga Sonko dara xamu ko dem leen ngeen def interview ak moom ngeen ne ko mu làkk français fii lañ ko yóbbu France mu naan xaw ma ñun suñu tourisme on a des animaux xaw ma loolu mooy ministre Sénégal léegi nit ñu ñàkk solo la ñu jël benn qualificatif ba qualification la ñu am mooy mën nañoo saaga opposition ñu def leen ay ministre ñu dem assemblée nationale ay député di leen toroxal foofu mu weddi ne moom benn rapport épingle ko waxul dëgg. waxul deug il a été épinglé par le rapport de l'IGE mun naa leen liiral passage yu bëri xam nga ñom li xamul ñun document yépp lañu am téye ko léegi naa saa yu ñu dañ nan waji fan lay jëlee kan mo koy jox légui weddeetuñu de waye kan moy top bi la moy ciowli rapport IGE bi limu wax émission par le ministre de tutelle d'un ordre de service de démarrage antérieur à la notification et à l'enregistrement du contrat en raison du principe de la chronologie des actes de procédure, la notification d'ordre de service de démarrage ne peut être envisagée qu'après celle du contrat auquel il se rapporte. Ce principe basique du droit de des contrats administratifs n'a pas été également observé dans le cas d'espèce. En effet, alors que le contrat n'a été notifié que le 25 juillet 2016 à l'entreprise Green 2000, le ministre Mbambegna, assurant la tutelle du projet, avait déjà émis cinq mois auparavant un ordre de service Numéro, etc., etc. Cet état de fait est d'autant plus déplorable qu'il résulte non pas d'une ignorance des textes, mais plutôt d'un souci de répondre aux exigences non contractuelles de Monsieur Daniel Quand on dem taxaw assemblée nationale Sénégal yëpp di ko déglu mu ne moom rapport épinglé Je vais ko damay ba si ak est-ce que c'est un yi am na lu ci des ak Sénégalais Quand le Macky Sall jël def ko ministre ak ki nga xam le moo 94 milliards rapport OFNAC ne recommandé na ñu ubbi légui des poursuites pour escroquerie sur les deniers publics Macky Sall jël jëm jël jëm jox ko ONAS dégg naa bi mu egsee fekk na fa déjà ben financement de 40 milliards yow boo sénégalais xamni 40 milliards yoy <laughs> lu yalla xam baax na mais li moy Sénégal li la ñu war a waxte ci réew mi Macky Sall respecté wul sénégalais amul ben respect ci sénégalais xolal sagaru nit yi mu yóbbu assemblée nationale. ay kat ñun de dañu wara sante yalla ñun ñi bu ñu demulee assemblée nationale ñu bayilé nak suñu ndaw ñu leen di defal lañ leen defal dañ ci dellu sante yalla kon man lima bëgg wax moy ñun Macky Sall day jaay ni mom tacticien politique la Macky Sall ñun ñoko dakk politique fofu bañu commencé jamarlo ba légui li ñu andi ba fi moo yor état moo yor armée moo yor justice moo yor renseignement généraux moo yor lépp waaye li ñu àndee ak moom ba fii ba tey bi ñu génnee élection législative il était minoritaire xam na ni ñoo ko dàq politique fuuf yi muy def fay ay nit dem leen ci télé yi wax def leen di def leen laa loolu ñun on est focus sur des objectifs très précis te ni ñu def ba taal xelu sénégalais yi ci loolu la ñu continuer nekk pour sénégalais yi xam li xew ci réew mi li euh, priorité Sénégal moi, sénégalais yi sonn nañu waaye kan mo ne fi té mënul né mom sonna na nañu wax ci coût de la vie dundu gi ni mu chéré li mu def nii réglewul problème sénégalais dé mo wax len ko légui nak bu len faté ni Macky Sall bi mu togué 2012 première mesure yi mu jël c'était pour la réduction du coût de la vie affaire bi wàññeeku woon na ñepp saluer ko mais au bout de six mois un an dafa melni ascenseur la jëlat

imposer ko ay investissement yoo ne du suñu du suñu priorité damay wax limay wax toujours terre baax na trop de mais fondamentalement là la changé ci réew mi est-ce que tax na nit ñi dundu dund gu gën gu oyof est-ce que tax na li ñuy lekk est-ce que tax na paj mi amélioré est-ce que defar na njàng mi pourtant 2000 milliards def na ci terre bi milliards su ko defoon ci mbay mi ñoo autosuffisance li muy defar parce que moom def def affaires pour ñëw def ay inauguration ni gis ngeen am terre bu Paris Paris balaa muy def terre dafa am lu mu jiital Paris balaa muy def terre fexe na ba koom-koomam dëgër ba mbayam dox ba càmmam dox ba lépp lu mu soxla mun koo amal boppam ñu ne kon léegi nañu def des investissements yu mel dañuy def loo xam ne ba am stade stade comme stade du Dubaï

ñoom ñiy bay di yóbbu seen réew lañuy ñuy trier lu répondre norme union européenne moom la ñuy delloo si réew mi muy pomme muy soble muy leneen càmm gi doxul moo tax ba meew bi ñuy naan sax dañ koy obligé importer napp gi doxul jaay na géej gi industrie amul amuñu ay usine ci réew mi nu ngeen buggeen dund bi wàññeeku mbokk yi du am moo tax ku bëgg a defar réew mi loolu ngay njëkk a farataal

loolu da nga koy def après tabax autoroute tabax autorail tabax BRT tabax ay stade lu yomb la lay doon parce que réew mi am na koom-koom bu ko mën te doo ko dem levi bitim réew lii mu war a doon suñu suñu priorité waaye nekk ci débat yoo xam ne amul bopp amul genn troisième candidature ou pas ni oui ni non ça c'est son problème il ne sera pas président une troisième fois au Sénégal incha allah loolu au moins ñëpp xam nañu kon ñun Yewwi Askan Wi ci li lañu tek suñu action ak ci nekk ci terrain bi di liggéey kenn ku ne ci ñun président Déthié Fall la ngi ni tournée internationale la jóge kenn ku ne ci ñun mi ngi ci ay tournée man gannaaw ëllëg incha allah laay reprendre sama nemmeeku tour ñoo ngi dem dajeeg Sénégalais yi wax ak ñoom wax leen lan mooy problème mu Sénégal waaye proposer leen ay solution concrète ñun tey fi mu jamono bi foofu lañ toll waaye wax yi ñàkk fay yi ñu nekkee fi ñoom nañu nekk rek ci presse bi di wax on verra fan lay mujj kon lii lañu bëggoon wax ci lu gàtt boole kook li suñu naataango yu wax pour wax sénégalais yi ni réew mi ñoo ko moom senegal de manqué wul dara yàlla dese lu ñu dara ba mu des njiit gu baax yàlla dese lu dara li fi yàlla def amul France France amul pétrole amul gaz amul zircon amul or li fi yàlla def amul France. kon naka la ñu mën a toogee ba suñuy doom naan dañuy jël gaal dem France wala dem Espagne dañu xoolaat suñu bopp dañu nangu ñun ñëpp nag ni Macky Sall lajj na lamentablement parce que li ñuy njëkk a nattee développement ci réew xam ngeen lan la du ñaata immeuble la ñu tabax du ñaata autorail la ñu defar premier élément de développement mooy indice de développement humain mooy nit ñi naka la ñuy dundee est-ce que ñi ngi lekk bu baax ci njëg bu yomb. est-ce que ñi ngi faju ci njëg bu yomb wala gratuitement sax est-ce que xalé ñi ngi jang ci système éducatif bu baax est-ce que est-ce que lool moy premier élément du développement motax ñu ñi classé ci 25 pays les plus pauvres nañuy inaugurer ay trains nañuy inaugurer ay stades nous serons toujours parmi les plus pauvres parce que sénégalais yi dunduñu nous survivons mais nous ne vivons pas ñu ngi leen di gërëm di leen sant alaykum merci beaucoup ñu ngi leen di gërëm di leen sant taxawaay bi rafet na te di leen jox euh, dig daje merci beaucoup merci